jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net nuyooti nañ leen bu baax a baax siyaar leen mbokk yi ba léegi dañ leen di toppal li xew ci diggante Lac de Guiers ak Siteu dégg ngeen combat bi démb sa signature bi si 2STV nu mu demee yëpp seetaan ngeen ko yaakaar naa ne yéen ñi nga xam si yéenay dundu làmb ak amateurs yi seetaan ngeen ko démb mbokk yi tey tamit noonu bu ñu xëyee noonu la ñuy jëlee suñu micro dugg ci biir amoo 3 waxtaan ak yenn Baye Fall yi nga xam ne tamit ñoom ñoo ngi fa di dundu làmb waaye tamit waxtaan ak amateurs yi nga xam si ñoo ngi ñoo ngi dund làmb sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Fall bi. tur bi naka la. Khalifa Ababacar. Khalifa Ababacar ñu ngi lay. si nag fii gaynde la ñuy wax setu almaami. gaynde. Mhm, setu almaami la. lu waral gaynde setu almaami. waaw xëy na nit léeg am na jikko yi nekk ci yow wala xadar yi nekk ci yow nit ñi ñoo koy gis rek wax ko ci yow mënuma ci dara tuddewuma ko sama bopp. Hmm. Mhm. kon dafa am benn xadar bu nekk ci yow. waaw mooy yoonu ndaw du gaaw rek ak ñeme sa yoon xam fi ngay teg sa tànk xam li ngay def xam yaay kan. loolu tamit bu yàggee day nuroog yëfi gaynde. day doon fi jàmba noonu la demee nag. Mhm. Fall tey ñu bëgg a waxtaan ci la de Guiers ak Siteu combat bi gis nga signature bi nu mu demee waaye tamit gis nga kàddu yi nga xam ne ñoom ñaar weccoonto nañ ko tey lan nga ñu mën a wax ci combat boobu. waaw laaj nga ma loo xamante ne xëy na tamit war naa ci mën a am tuuti xalaat ndax euh, lamb dañ koy dundu Moustapha Gueye leen ci doon àndal kon yàgg na Lac de moom bu fekkee seetaan na lii xam na ma kon moom ci lamb lañu ñu fekk ñu ànd ak moom ci lamb di ko gungee ci làmb ñu bokk gox gox boobu nag tamit day indi sot ba day waral moom bu amee bisam nga ñëw ba yegg ci ñun fii ci seen lavage pro nga ñëw di wax ak ñun di ñu laaj ci Lac de Guiers lépp luñ ci xam war nañ ko wax si teyit waliyaan na làmb nekk ci làmb nekk Baay Faal côté boobu tamit ñu am buum bi ñu bokk ba pare ñun ñëpp ñu bokk bokk làmb ba jotaayu làmb boobu boo ma si laajee dama ciy mun a wax li ma ciy mun a wax tamit du ma ci wax loo xamante ne xaw ma ko mbiri àdduna la dina am ñu mu neex dina am ñu mu neexul mais ñoom seen liggéey la nañ ko fonk waaw bis boobu noonu nag ñu ngi si njort loo xamante ne mooy jàmm ak salaam avant tout ñi ko bëgg ak ñi ko bëggul dañ leen si ñaanal jàmm ak salaam ragal peete tamit day xañ a ndax bis boobu man bu ma yoroon lu may joxe wala may joxe daan Lac de Guiers laa koy jox wallahi yàlla xam na ko ci sama xol laa ko tibe te nag ah Siteu gis naa ko xool naa ko wax na xalaatam ak yéeneem mais na def ndànk na def ndànk li tax mu war a def ndànk mooy ki muy dajal dafa nekk mbër moo xamante ne mun na bis te Lac de Guiers critique yi nit ñi di def ci moom yi bëri man critique boobu laa ko buggee nee nañu daw. mooy ban nee nañu day daw rek te day arrière. waaw léegi moom day daw day arrière mais moom anti la yor te adduna bi ku amul anti demal xoolaat say mbir saa yu tantee rek. day am li mu bëgg Lac del tante gunge naa la contre Papa Sow nga tante am dara gunge naa la contre Yaxya Joob Yékini nga tante am dara te combat bi déglu war na la lamb la mais tantel tanteel soo lu mu war a lu mu war a tante foofu tante mooy bu arbitre sifflé sa diggante ak Siteu na nga xam ne jàmbaar nga dajal mbër nga dajal mais bis la te ndam ngeen di wut ndam boobu soo gëmee sa bopp man ci li ma gis ci li ma gis man ma nga xam ne gis naa ko damay tëdd di nelaw di ko gis damay yeew di ko gis Siteu munu la boo leen dale boo leen bëre woon dix fois bul wut niil saa yoo gëmee ne da ngay daan rek boo ko jàppee war nga ko mun a daan man loolu dama ko gëm. dégg nga Siteu démb lu ma wax si signature bi nee na Lac de Guiers ñëwuma pour niil ñëwuma pour niil ñëw ñëw pour dara lu dul ñëw pour ndam laa ñëw pour indi ndam laa ñëw pour bëgg am. waaw Siteu su waxee loolu loolu la war a wax. su waxul loolu loolu la war a wax te làmb jooju moom tamit amul lum ci mënul am ndax ndam moom yàlla sunu borom moo koy maye mais Lac de Guiers dafay mbër boo xamante ne ñu bëri dañ koo umpale te pour mu wone boppam nag ci goxam sax gi mu dëkk kenn bàyyiwu ko su weetee rek nu mu demee la. ndax na nan la demee ba tax na moom mu muy muy weet ak yenn bis yoo xam si ne du ñu gis Lac de Guiers indi ay supporters yu bari ak bis bii ñu jëm nii lan moo tax mu weet ci côté boobu. li mun na bokk ci sama xalaat dafa am lu ñu doon gis ci làmb di ko gis ci ay mbër loolu xaw na xaw na daal raar ci moom moy mbër day caabaabal li tax ma ne la mbër day caabaabal magi làmb yi xam làmb xam na ne mbër day caabaabal loolu du tekki waane mbër bagaasu mbër yëpp lay yor Lac de Guiers dafa am bagaasu mbër yi mu yi loolu man xam naa ko moom ñi ko jege dégg war nañ ko xam ndax caabaabalul caababal mooy da ngay mun sa bopp fépp technique mystique rapidité vivacité yëpp ngay am côté yëpp ngay liggéey fu la waay tante rek dala fay fekk te ku la fekk da fekk nga jiitu ko te ku jiitu day am ndam lag na bàyyi loolu xel. ñu gis poids bi Lac de Guiers 2 yor ak euh, poids bi si Siteu yor est-ce que mën ta sonal Lac de Guiers 2 ci combat bi. waaw li ma gëm ci làmb mooy Lac de Guiers poids mun na ko bañ a sonal ndax ku ko xam de nature te dëkk ak moom xam na ne moom defa baaxoo poids. kon dafa dolli ñeex rek waaw te lag maanaam poids boobu bu leen ko gis jàpp ne maanaam xañ na ko dara si la mu ne defee lépp lenn rek man laa gis mu des ci moom moom xam na ne bu ma waxee ci làmb war naa ci wax moom lag xam na loolu mooy tante bi mbër yi bu leen xaalar dara dangay am benn taxawaay bi gëm sa bopp déggal sa bopp lu mbari di wut rek nga ne ko loolu laa wut si semence la si gën a jekk. gis nañ gis nañ si signature bi euh, mu mel ne euh, tarkindaa yi dañ ko sonal dañ ko sonal ci communication. Euh, dafa mel ne coowal làmb ci tarkindaay moom da ciy bëgg a doyal parce que instant bi coow li commencé naa bari ci moom. waaw am lu mu koy déstabiliser si si biir combat waaw mun na nekk ndax tarkindaa yooyu ngay tudd loolu slogan la rek te slogan boobu jàll na ñun tamit combat bii nii dinañu indi ñun suñu slogan ñu teg ko. maanaam coow booy seen coow bur yu tarkindaa yi est-ce que Lac bi doyalu ci. non waru ci mën a doyal xam la moo tax tarkindaa yi bëree wuñu tarkandaa yi lekkuñu avance promoteur Siteu moo lekk avance Lac moo nekk lekk avance supporters yi dañuy def li ñu war a def ku si nekk rek da ngay def li la war a def moom côté boobu moom du waaram sax loolu na ko bàyyi ak Baye Fall ak ay wa goxam. mais gis nañ dé gis nañ démb si biir signature bi la de mel mer mer si biir signature bi. waaw mun na nekk ndax nit ku nekk tamit nu mu mel rek la mel loolu Siteu mun te baaxoo ko lak moom xamul loolu xamul loolu loolu sax laay jooy ci moom. xam nga Sénégal da ngay wax lu ndaw ñu traduire ko noo xamante ne dafay yéeme Lac dafa desee nekk bandi géew moom affaire arab bi lay teg te fii gars yi gëmuñu arabisant arabisant yi nga xamante ne sax dañ ko baaxoo ci côté diine gis nga niñ ñu leen sempee kon làmb amul affaire arabisant affaire li li li yi di wax rek gën sa gën la. gat sa gat sa la. voilà waaw gis nga man dégguma sax nasaraan gat sa la gat sa gat sa mhm. daal. moom fi mu toll nii bis bi ah gisuma mu ñàkk ko de te bu sàgganee nag xoolul si li ma koy wax ba bis bi yàlla mooy maye ndam yàlla mooy xaña ndam mais lii ni du li ko yàlla war a xañ lii symbole bi ñun dañ ko war a dugal fii dañ ko war a téye man bëreewu ma lekkuma avance aw ma ci dërëm lu tax ma gën ko gëm loolu waa léegi fi muy jaar man xam naa ko xam naa ko bi mooy lan moom am na doole mun na bëre ku ne munul bëre da ngay wax lu la neex lu mbër jéem mu dindi ko mais muy muy def muy def action muy def ay action parce que euh, ko wax mu ne la la daggeer bëreem yëpp bu bu arbitre sifflé fi mu taxaw lay taxaw dina teg la wala deuxième loolu la Siteu wax démb. waaw léegi nag bii yoon Siteu mu dafa war a raxasi baraada bi lak yaa war a song yaa war a jàpp yaa war a bëre yaa war a daan déglu ma man bu baax maa la ko wax te du ma la suuxlu combat bi yaa war a song yaa war a dóor yaa war a jàpp yaa war a daan Siteu daal xam nga lan la am ci affaire bi remplir contrat. Baye Fall bi bëggee nag Siteu tamit bigoban ah, mais combat bi ñun ñoo ko moom na ko bàyyi ak ñun ndam boobu ñun dañ ko soxla dafa am fu ñu war a jëm dafa am lu yéexoon ci suñu yoon mooy décrocher roi des arènes te bu ñu daanee Siteu war nañu mun a décrocher roi des arènes. est que roi des arènes boobu ba léegi yéen ko ngi koy wax ba léegi gisaguñ euh, euh, def ngeen jikko ju tax ngeen gagné roi des arènes. non jikko bi def nañ ko bu yàgg ñoo fi gën a néew jël est-ce que sax daanu nañu waaw est-ce daanu ngeen benn jël. ban jël. ñoo ngi la benn jëli seen digganteeg Eumeu Sène foofu arbitre moo fa moo verdict moo fa génn mais amul jël boo xam si ni am na ci biir géew bi. sunu digganteeg Eumeu Sène am na nu muy demee bu doon lambi démb la mun na doon jaax. waaw gis nañ ko dafa cegiñ mbër mi mbër mi teg fes mais mbër mi da ko guutambaay mu teg bopp bu doon lambi démb la xarale yi ngeen am amul mun na doon jaax mais lambi tey la. lan nga gis si lenn ci làmb loo xam si ni am na lu ci wàññeeku tuuti am na lu ci yokk loo xam ne lu baax la. waaw làmb moom wax dëgg yàlla yàgg nañ ko suivre xëy na ay jamono gënoon na jax organisation bi gën a mucc ayib par rapport ak léegi mais léegi boo leen si taxawee tamit bëgg mu dellu fi mu nekkoon mun na dem ba gën a kawe foofu man gis naa loolu nañu jàppale ndax làmb léegi jeunes yi ñoo ci dugg ci côté yëpp ci côté yëpp ba ci mbër yi ba ci promoteurs yi ba ci xarale yu bees yi ngeen yor nañ ci gën a jàpp gën a organiser waat rek ndax amuñu lu dul làmb mooy sunu cosaan mun na gën a jëm kanam. gannaaw bi ma la gërëmee sant la di la jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi lan la. waaw kàddu bu mujj gi mooy di leen njukkal tamit yéen di leen santaat ci cant googu di leen gërëm di nuyu waa gox bi di nuyu waa réew mi di leen ñaanal jàmm ak salaam ñëpp am jàmm ñëpp am salaam. bàyyiwuñu fenn Sénégal buñ ko waxee rek amatul tomb buñ ci génnee di leen ñaanal yoonu ndam di leen xamal ne tamit combat bi Siteu bëgguma nga jàppee ko ay wax ndax lu ko pare pare pare pare pare man gëm naa ne Lac moo ko gën a pare ci combat bi Lac jarul ñu ci waxtaan jëfal rek. jëfal rek te li ma la wax soo fa teggiwul sa tànk nga xool émission bi wallaahi azim di nga xam ne man du ma la gëlëmal du la nax yaa war a song yaa war a dóor yaa war a jàpp yaa war a daan si te li mu fa amoon am na ko lu mu fa amul waru ko am boo sagganee nag ah lamb day dëpp soo nangoo rek ñu dëpp ko. doo génn na def dama lay nuyu rek. maa ngi sant sant bu baax a baax. maa la déggee Siteu fan ngeen ci toll. waaw mais la de Guiers la ñuy supporter. waaw mun xam naa loolu. mu munul yaa ñu fekk si ancien kër gi nii sax. Mhm, waaw amuñu lu dul géejawaay. donc fii fii fii mooy ancien kër Lac de waaw fii la njëkk a dëkk waaw. avant moo toxu bi fële. Mhm. amuñu lu dul géejawaay donc géejawaay ku muy bënt bëral moom la ñuy faral. Mhm. incha allah rabbi di ko ñaanal ndam lu sedd guy rek. mais yéen a ngi bëreeg tarkindaa yi booy yu bari coow. waa mais dara booy coow rek wax ji rek lañ am ci làmb ji wax ji rek lañ ci am ah. mais jëf ji. jëf ji ci biir géew gi la. kan moo koy def. la de mun na boot si sax di daw ak moom. barki Cheikhul Khadim. Ah. waaw lamba leen boole nii xaalis la rek mais mooy loolu. jërëjëf <laughs> jaajëf taw. gannaaw mooy loolu lamba leen boole nii rek xaalis mais jàmbaar. jàmbaar maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay siyaar. ci loolu sant yàlla tur bi naka la. Ibrahima la. Ibrahima naka itee. waa sant yàlla bu baax. Ibrahima affaire yi nga doon démb ci làmb ji lan la. waaw di préparer rek. di xam ne waa ji moom dafa yaakaar ne moom séeréer la mais ñun ñëpp ay séeréer lañ man waa Fatick laa maxey simna làkk ko séeréer maxey simna nga sax nga moom maa ngi nuyu waa séeréer séeréer yëpp Fatick Joal Bombaan Ngeeñan Kaolack ñëpp maa ngi nuyu di wax tarkina ko laye wo fo xoof i ndamagang xan i mbarong wo ko ɗoofluwa andiro xooxof de bala anda xooxof albitanang prip a tire o anda xooxof moofi o regle o regle nge rek xana damong to ande la dëgg yoom séeréer refu boo mo refe o ka fof fo in to kaga moom fata teel a andin no xoox lawo loo ko wax fo mo maanaam dama ne li muy wan si séeréer yi Lac de Guiers day ànd ak ay séeréer est nga ma Lac de yaayam soosa yaayam séeréer la dëkk fi caajaay bi man nag maa ngi woowu waa caajaay di woowu waa ngeeñan di woowu waa caa ngeeñan caajaay Kaolack Mbaan di woo mbokk séeréer yëpp mbaa foofu si Siteu jiituwu leen fa déedéet mënu ñoo jiitu foofu mënu leen a jiitu si ay mbokkam ñun déedéet ñun waa Sine lañ ñun bokk ñoo moom làkk sax moom beneen façon lay lakk lay làkk ñun waa Sine lañ ah séeréer dafa am ay façon séeréer dafa am ay façon waaw dafa am beneen façon façon yu bëri yoo xam ne Siteu kon séeréer fan la séeréer moom séeréeru Marolan la ñun séeréeru Sine lañ ñu ngi nekk côté Fatick mënu si ñun dërëm bëgg na tuuti barki Mouhamed albi du ne prib day ñàkk jërëjëf dal ànd ak dal te yaru. mais demb gis nañ ci biir signature bi seen euh, adversaire bi la de xaw a mer. non du question mer sax mais maanaam du question mer moom du mer mais maanaam moom dafa bëgg nit koo xam ne ku yarul la maanaam indiscipliné moom bëgg ko ñun ñuy ànd moom sax indiscipliné du nare am danaan la eh, defal nii defal nii kon boog ñun yaru la ñu jox te yaru lañ koy bëgg di delloo mais reewante moom soxlañu ko si làmb dañoo soxla si làmb yaru def li ngay def daan dem ñibbi loolu lañ soxla mais affaire de violence ñun soxla ñu ko si làmb ñun. jërëjëf mi la dëgër jërëjëf. ok maa ngi lay nuyu. maa lay fay jàmbaar. socc bi xanaa la dëgër la ko jox non non socc bi socc socc jàmm socc bi nekkul la dëgër la ko jox fu ne ngeen di jonj seen bëj. non non dawul loolu lépp am. am ngeen coowal làmb Siteu. coowal Siteu coowal tarkindaa yi rek làmb la. waaw non làmb moom lamb rek la. coow yooyu yëpp ci biti la yooyu moom garaawul pour coow noonu noonu loolu garaawul quoi waaw garaawul. mais maire bi ngeen doon maire ci biir signature bi. non même pas meruñu sax meruñu cest à que bon xëy na wax bi moo bëri rek c'est normal nag si te doxalee noonu wax dëgg yàlla bu la fay ay millions moom boo ñëwee da nga ba mu neex mhm. si te xam nga moom bu dee ambiance moo koy bu dee wax ji moo koy gérer loolu c'est baax sax. mais bëre bi. non bëre bi garaawul si te xam nañ du ci am dara moo tax foog mu neexal nag a amat combat hmm. moom lii muy def nii yëpp pour avance bii di ñëw après la xam nga yëpp day pour avance yi di ñëw pour après ñu bàyyi la xel xam nga Siteu am dafa am coow wax dëgg yàlla loo a waxal dafa am coow làmb da ko wuyu am na mbooloo. am na mbooloo loolu day neexal moom day làmb Siteu day làmb. noo gisee noo gisee par rapport ak Siteu bu bi nga doon gis bi nga ko gisee démb lan lan nga gis si booy bi ne yokk na. non non wax dëgg yàlla Siteu amul changement li ma gis amul changement dara amul dara ci moom am Siteu amul lu ñu xool ci yàlla. amul dara loo leen tiit ci moom. làmb la la moo bëgg bëre di bëre nekk mbër bëgg a moo ko booleeg Siteu mais yow mi may posé question xam nga ni Siteu ak Lac de Guiers làmb boolewu leen. parce que bokkuñ parcours bu ñu jaar. c'est que kii dafa bëgg compétir jóge ci ñaari victoire yu wóor xam nga làmb ni muy demee parce que doxul ci coow làmb nekkul ci ay détails toog ruxam ñu bëgg ko booleeg Siteu bëgg a compétir jël avance bi doo ànd ci ak ay mbokkam dem bëri loolu kese moo ci nekk. boo amee looy conseil Lac de Guiers nga koy wax. non la de Guiers daa am leen wax. amoo dellu ko wax li ma a a xam li ma koy wax a xam amul dara lu ma koy moom kay wax waaye moom am man amul dara lu ma koy wax. tur bi naka man Daaf la. Daaf jaajëf. jërëjëf Daaf. mais gars yi xel leen ji ñu naan ngeen def seen teg seeni i nii teg leen ataay ji gars yi teg ataay ji ñu naan xeli leen lii. ban warga la. non bu ma xawoon publicité laay bañ. publicité laay bañ gannaaw maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ku baax mais gannaaw yéen ñëpp a ngi socc de lan la. waaw mais dañoo bëgg lu baax rek am nga socc moom mooy loolu. si te la dëgg fan ngeen ci toll ci waajtaay bi ci préparation ak tarkindaa yi ngeen xam ne booy dañu seen làmb lépp coow la. dëgg la waaw salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ku baax naka yi tey baale bu taw feex waaw ñu ngi lay fay bu baax jaajëfati waay ah ñun de wàcc Siteu moom daanaka wàññi ay combat yu gën a métti Siteu ngeen ne ñun waaj nañ ay combat yu gën a métti Siteu yaaram ñun waaj nañ ay combat yu gën a métti Siteu tarkindaa si làmb ji la ñu fekk ñun. Mhm, bien waaw moom si làmb ji la fekk ñun waaj lu gën a métti Siteu jarul dara. nga ne non Siteu a jarul dara. tarkindaa ngi lay seetaan de. moom ñoom laay waxal nii waxuma yow de tarkindaa laay waxal Siteu jarul la dëggee di daj benn coono la di nekk si yaramam rek. su ko maintenir maintenir xajul si Siteu yaaram. Hmm. barki maam Cheikh Ibra xajul si Siteu. Siteu Lac de Guiers dox daje coow li demb dem ba mujj gis nañ Lac de dem ba mujj gi dafa yéeg. Mhm. parce que am na lu mu doon wax mais booy bi dafa dem ba mujj gi Siteu dafa ceeñ. waaw booy bi moom maanaam combat bi moom boo bëggee dëgg-dëgg yaaram loolu rek la am si combat bi loolu képp la am si combat bi si ñaar tiir yi indi mamb yoole xam nga lu wax loolu laa am si làmb ji mais amul leneen si làmb ji. maanaam Lac de Guiers fi mu jaar boo ko xoolee ak Siteu da ngay xam ne Siteu mii nii jarul waaj yi benn waaj yi. xale du xale du màgg. xale day màgg kay. Siteu mi bi nga gis démb gisoo ko moom mu yokk dara amul lenn lu mu yokk. waaw yokk na loolu moo yoon. loolu moo yoonu làmbam Lac de Guiers booy moom da nga war a yokku da nga war a def lu bari. da nga war a rey sa bopp war a rey sa bopp liggéey. xam ne Lac de Guiers nekkul mbër boo xamante ni da ngay ñëw di ko manipuler Lac de benn mbër musu ko manipuler. moom moo am lu mu dese rek li mu dese nag si Siteu loko koy yebbi. lu mu dese lan la. bomb bi si Siteu loko koy kalaate. dina am benn bomb boo leen denc. bu garaaw boobu moom la koy. bu leen jëlee bomb bi. Siteu déggoo li ma bu. leen defaral bomb bi. fii ko ñu Poutine la yow xanaa xamoo loolu yow. ko ñu Poutine. Poutine. <laughs> déggoo ma la wax bomb baa ngi fi gars yi di ko. ko ñu Poutine la nii. dama fi xaar bomb maa ngi dem. nga non non man dama fi xaar ay bomb Poutine. mais gannaaw yéen seen socc yi tee leen ko waay. non socc yi biir la. socc yi tarkindaa yi leen bu baax a baax waaw dafa leer. démb tare ngeen ay saar yu ne demb avant ngeen yi toog la dëgg façon ñaan bu ne ñaan na ko. waaw loolu noonu la moom xam nga nit ki moom doo ne si mbooloo nii balaa ngay wax foog nga tari dafay affaire mu def ay muslaay noonu la demee rek. Mhm. waajtaay bi waajtaay bi foo leen ci toll. waajtaay beeg ambiance beeg coowal làmb leeg promo bi fangeen ci toll. waaw comme nii rek comme ni ñu gisee nii rek ñoo ngi teg suñu caan di savourer yenn gars yi sax ñëwaguñ dañoo bouger affaire yooyu mais ñoo ngi si ñoo si kawam daal ñoo ngi si kawam bu baax bu baax. boo amee kàddu yooyu wax Siteu lan nga ko wax. waaw wax dëgg yàlla moom man jéem ma ko sax calculer lijjantiw ma ko calculer ma nag wax na wax su wax na wax ji yëpp mais nag comme moom wax ji nañ ko bàyyi wax ji mais ñun dañ xam jour baax lu ñu lu ñu war a indi ak lu ñuy def. Mhm. kon Siteu da da nga nga wax ne kon Siteu amu fa amu fa dara wax rek la fa am. la fay neex ku ko fay de waaw wax ji ak luy neex ku ko fay def. luy neex comme façon. luy neex ci làmb ji ku ko fay def. mën naa ko gisal ne ko moom xëy na fecc beeg ambiance beeg yooyu moom mën nañu ko ko jagleel. bëre bi comme bëre bi ak xeex bi daan daan bi kooku moom incha allah. kon yéen a ko bàyyi ak ambiance bi mais jël yeeg yooyu yëpp yéen ko moom. ya yàlla yàlla na ko yàlla def si kattanam. Mm. waaw seen mbër ci ci lu mu ne. waaw mu si entre yi rek. waaw mu ngi si entraînement yi. Hmm. Uh-huh. Siteu amoo loolu si tiit si digg seen digganteeg Siteu tiitoo leen si dara maanaam booy bi tiitoo leen ci dara ak coow lu muy def ci biir stade bi bur yu boobu mbooloo mi bu yuuxoo amoo leen dara loo leen ci tiit. non wax wax. yow yow xaaral xaaral. yow góor non yow grand xam nga yow lan nga war a def ah? yow dama la bëgg a invité lundi. si télé bi en direct. Hmm. yow ak keneen ngeen ñëw. ci lundi si télé bi en direct ma xool fee tarkindaa yi nan laa fay invité ñaar lundi bu ko defee ñu toog waxtaan ci làmb kon booba victoire bi foofu lay feeñee sax. ganaa pare nga. bu boobaa victoire bi. mais pare feeñee ñun chaque jour la ñuy pare. réew maa ngi lay seetaan. chaque jour la ñuy pare réew mi laay waxal. kon lundi. incha allah joxal joxal gars yi lundi rendez-vous lundi seen émission. lundi la seen émission fàqet. Ah. da fàqet boobu nga wax bu sàggantuwul fàqet boobu moo koy dal moom. tur bi nag daa bi nooree ni la. ok kon nooree ni fii laay jaaree tëj ci yow. waaye yow mooy loolu yaa. Cheikh Cheikh gis nga noonu lay demee ah. grand maa ngi lay nuyu. di la siyaar Cheikh gis nga noonu lay demee. gis nga ñu ngi fii. kër la daygeer fi mu dëkkoon kër gu njëkk mais gars yi di leen jox rendez-vous parce que lii dama koy dagg parce que ñamale la dafa am yenn affaire yu ci nekk ci biir waxtaan yu nekk ci biir mais lamb moo nekk ci biir parce que dama bëgg ñu waxtaanee lamb dama bëgg ñu waxtaanee lamb dama bëgg ñu waxtaanee ak jeunesse bi dama bëgg ñuy waxtaanee nañ la ñuy chaque jour ñu communiquer si boo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si lamb nuñ leen di tegee fitna yooyu yëpp mbokk yi dañ siy waxtaan ci leeral TV leeral point net gars yi dama leen jox rendez-vous lundi à partir de 22h ci Leral TV Leral point net seen émission faqat ñu ànd ak sponsor bu réy boobu muy Tramoto gars yi ku bëgg moto bu baax demal nga seeti Tramoto mais lundi diggante waa kër la de ak waa kër Siteu ci télé bi mais gars yi dina tàng dina neex ligne bi nag dinañ ko ubbi bu ko defee gars yi woote ci émission bi dañ fexe la de woote dañ fexe Siteu ak woote gars di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf.